jërë ngeen jëf mbokk ñu ngi Rufisque Nord rawati ko fi nga xam ne tamit euh, moom mooy euh, pont bi nga xam ne euh, nawet sut daanu see rek pont bi mooy dajale ndox yu jóge fi nga xam ne moom mooy Kër Ndiaye Lo bàyyi ko fi nga xam ne tamit moom mooy sa Sangalkam daal di mën a dugg si li nga xam ne tamit moom mooy dëkk bi suñu waxee nag pré hivernage maanaam balaa li nga xam ne tamit mooy nawet bi di yegg si faaw ñu wàcc sur le terrain daal di def constat daal di xool yan taxawaay la ñii di autorité yi daal di def ngir rek muccal ñi nga xam ne tamit ñooy askan wi si li nga xam ne tamit moom mooy euh, mbënd mi moo tax nag tey euh, Kër Ndanane TV wàcc sur le terrain daal di jaxasoo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy askan wi laaj la ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi suñu waxee kilifa yi nag mooy maire suñu ne maire nag fii nga xam ne mooy Rufisque donc monsieur le maire Assane Kassé moom moo ko jiite dañuy xool li nga xam ne tamit daf la constat de visu balaa li nga xam ne moom mooy nawet bi di yegg si xool yan taxawaay lay ñii di kilifa yi daal di jël rek ngir daal di aar askan wi si li nga xamante moom mooy mbëdd bi donc ma daal si ànd ak ki nga xamante tamit moom mooy le grand journaliste ak le grand technicien Pape Doudou ñu fas yéene daf li nga xamante tamit moom mooy jàngan bi ensemble maanaam le constat pré hivernage fii nga xam ne moom mooy fii si Rufisque Nord ñu daal di dem Pape Doudou sama papa. Saliou Ndiaye tur bi yow nga dëkk fi nga xam ne tamit euh, moom mooy gox bi ñu nekk est mën nga fàttali ko askan fi nga dëkk nii euh, fan la. fii mooy dangu fin canal quoi maintenant Missirah fin canal la ñuy wax quoi fii mooy dangu fin canal. ñu gis ne saa yu nawet euh, di ñëw. waaw ah. su ngeen tëddee du ngeen nelaw ndax jafe-jafe yi nga xam ne moom ngeen di dund. est-ce mën nga si loolu balaa nga xam ne tamit mooy taxawaay yi nga xam waaw non mais fi moom bi ñu fi nekkoon avant moom ndox da doon bëri lu ya bëree fi parce que doon nañ gis ay néeg yi jàmbur yi ñëpp dañu leen génn seen néeg yi génn seen bagage yi di dem mais peut-être que ak pont bi ñu defar nii peut-être loolu dina mën a changer quoi mais bu jëkkoon ba moom ndox foom problème la woon fii parce que oto da doon ñëw fii sax di dugal fii quoi mais peut-être ak ni gars yi defaraatee canal bi fii def pont bi peut-être loolu mën na changer quoi parce que ndox mi da doon jàll bay surmoon na parce que ñii ñëpp dañ doon génn seen kër yi dem wuti feneen fu ñu dëkki mais comme maire bi def na fi canal ak affaire yooyu peut-être que bu ren ji mën a changer quoi parce que fii amul woon oto fi daaw fa doon jaar bu nawet jotoon rek ndoot oto doot fi jaar mais def nañ fi am pon ak ay canalisation pour xool changer ko quoi après ñoom tamit ñu ngi si rek kanal bi parce que canal bi li fi duggoon si suuf dafa bëri quoi normalement bu fekkee ne dindi nañ sable bi yëpp ba mu dañ ba fii dina gën a normal léegi pour lépp mu dañ quoi pour ndox mi waaw non parce que man bi ma fi dëkk dama xalaatoon dëkk fi noonu parce que yàgg naa fi bi may nekk xale canal bi melul woon nii parce que dafa rasé woon amoon amul woon suuf bu bëri mais bu mu demee ba suuf bi bëri fii kii bi nii moom si laa jël xool am ne lii bu fekkee ne ndox mi day ñëw day dugg sama kër moom si laa amee envie rembale ko ak ay suuf ak xeer quoi si laa ko rembalee noonu quoi mais bu lool moom li fi mu nekk nii lépp naa yus quoi waaw. kon instant yii nii ak euh, canalisation yi nga xam ne def waaw en na. pour le moment mii bu ñu tal quoi parce que lu ma gis nii parce que boo bu dul sax. passage bi am na parce que def nañ fi pont léegi boo xam ne nii ndox danañ ni oto yi dinañ fi jaar ak voiture yi mais amul woon loolu mais puits yëpp dañ doon dévier wu uti beneen yoon mais léegi ak niñ ko defaree nii peut-être bu travaux yi pare tout lépp lépp dina mën a jaar yoon quoi yoon dëgg la vraiment. waaw travaux yi daa mel ne commencement bi mu ngi commencé baax de waaye fi moom dafa xawoon métti moom waaye fii moom daa xawoon métti te ndox mi moom du laan daw fii dafa bëri torop te ñi ñi dañuy borom kër yi nekk fii côté yëpp dañ daan sonn nag. xanaa ah ñooy xalaat daal moom nawet bi xam nga kiiwagul moom moo tax. waaw commencé gul moom ñoo ñoo ngi tànn wante fii daan fees bay bay bay tuuru si kër yi sax mooy kër yi nekk fii yëpp daan tuuru foofu noonu waaw te yëpp ñi borom kër yi da dañ ñaan sonn laa moo tax ñu def si barrage bi nii moo tax ñu def si barrage bi nii daan tuuru nag loolu moo tax daan tuuru nag waaw waaw kon jafe-jafe bi nga am si waaye bu mettee métti métti métti billaahi wallaahi non bu laan teg guddi sax da jaaxle sax doo mën a nelaw doo mën a nelaw ndax ndox mi ni mu laan ñëwee at mu naan fii yëpp daan fees del daan fees del fii yëpp daan fees del ah ah ñu ngi ñu xool daal ak canal gi fi def nii canal bu bees ah ñu ngi xool ñu ngi taxee recours daal xool. waaw waaw ñu ngi seen xel moom mu ngi commencé daal moom. donc yan message ngay lancer autorité yi. waaw waaw ñu ñoom ah ñu ngi góorgóorlu de man fi di nga gis ni fii nga fi ñu taxawoon fii laa nekkoon fii moo nekkoon sama atelier sax. fii moo nekkoon sama atelier xam nga rek canal ah bu ñuy defar canal lañ ma wax pour nga pousse fi pour xam ak pour canal bi mën a continuer nii waaw loolu la moo tax waaw. fii laa juddoo fii laa yaroo waaw fii mooy sama kër waaw fii moom comme gars yi geste bi ñu def nii ak monsieur le maire geste bu rafet la parce que lii dañ ko gëj a kiire parce que buñ ko kiire ñun am nañ am nañ yaakaar ne ndox bi dootul amati mbënd quoi ak kanaal bi ñu fi def waaw waaw jafe-jafe bu metti parce que bu ndox mi mësaan a ñëw curage bi nekk fi suuf si nekk fi ndox bi daawul woon dem fii yëpp day fees tey am na ay at yoo bëri yoo xam ne fii yëpp daaw loon fees mais bu suuf si bëree ci biir kanaal bi ndox mi day téye ndox day téye ndox mi ndox mi du dem day bloqué affaire yi mais buñ ko kiiree ñun am na yaakaar ne mbënd du am quoi mm-hmm. waaw. donc fii yoon bi nawet nekkoon jafe lool ñu yenn si oto yi wala boog si li moom mooy euh, yenn si nit lool. waaw parce que boobaa oto yi bu nawet jotee duñ fi dem mais comme niñ ko defee nii yaakaar naa bu tawee. quelques minutes ndox mi dina dem oto yi dinañ fi mën a jaaraat mhm. waaw li des tamit ci potion bi suñ ko mënee karo mu gën a baax tamit mhm. waaw encore ak maire bi liggéey bu rafet lay def franchement pont bi tamit bi mu tojee moo ko defar biñ ñëwee waxtaan mu defaral ñu pont bi oto yi di fi jaar defar kanaal bi ñun am nañ yaakaar ne ñun ñu fi dëkk juddoo fi xam nañ ne bu fekkee dañu jël curage bi ba mu jeex ñun dootuñu waxati mbënd muy sik muy fii muy ci ginnaaw muy misira du ñu am problème. ku baax na nga def. sant rek sant euh, tur bi. tur bi Modou Sarr la. Euh, Modou Sarr yow ñu fekk la si atelier nee nga ñetti nawet fekk na la fi. waaw euh, nag daanaka léegi mu yegg si. donc jafe-jafe ngeen mën ñànkanteel si nawet bi teeroo. ah ndox mu bëri rek. ndox mu bëri rek. ndax fii moom nawet bi daf ñu fi fekk lu bëree bëree bëri. ndox mi lu bëri dañu fi fekk fii waaw ndax yi temps nawet bi mën na ñàkk bari noonu ndox bi waaw ndox bi mën na ñàkk a bëri ci dëkk bi nii mais suñ toogee ba benn instant liy génnee ci àll bi di ñëw fii ci cité yi di jaar fii lépp lépp xajul ci biir canal bi xajul ci yoonu ndox ndox nag du bàyyi yoonam mais yi temps daf ñu fi fekk fekkenti boo xam ne ñun suñ bopp sax dañuy mujj jël kele yi dem walla ñu bàyyi ba ndox mi jàll ba jàll daal ñu door a ñëw mën a teew mën a liggéey au lieu que su su jàllee sax en général dañuy ñëw liggéey bi day gën a bëri fii ndax moto yi jaar fii yëpp dañuy fay waaw ñun buy daw buy taw buñ ajee suñ kele ba xam ne ndox mi di ko yóbbu bi ma fi njëkk a fekk nag parce que li mu yóbbu sama bagage bëri na ndax boobu man gan laa fi te ma nu mu demee mais après bi ndox mi ñëwee ba jàll ma ñëw xool bagage gis naa ne li mu yóbbu bëri na mais après bi ndox mi euh, mujj gi daal buy taw dañuy jël kele yi aj ko dañ ko daan aj ci foo xam ne ndox mi di ko jaar léegi buñ jàllee ñi ñëw xool moto yi fay fii ñuy defar affaire de nawet moom euh, nawet moom xam nañ li machine di paan mhm. mais nag ndox mi moom dafay jaar lu bëree bëree bëri waaw daaw benn grand rong mu na ma fii di xam naa ne boobu dafay xoole rek xam naa ne daf fi door a jaar gis ni ndox mi jaaree fii après si laa gis euh, ndox mi këf ko fi ba benn Baye Fall bu nekkoon ci laafaas bi nekk fii xam nga fii laafaas la fee laafaas la mhm. benn Baye Fall bu nekkoon ci laafaas bi fii moo ko dimbale moo daw ci weñam dugal loxoom waa ji dimbale ko fekk ñaar lañ woon ndax kenn ki da loon koy jéem a dimbale moom i ndox mi bëgg ko fa fekkaat mu daw waa ji mu ngi yoroon benn saak mais nag xam naa ne boobu dafa comportement dafa dafa xamul comportement ndox mi fii ni muy jaaree mais ndox mi moom euh, fi muy war a jaar jaaru fi bu ñëwee ba nii day tas day jaar fii yëpp day def nii mais daf ñuy sonal daal kër yi yëpp mm, waaw tey ban message ngay lancé waaw ñoom xam nga ndox du bàyyi yoonam te nawet bu ne nawet la boo bu ñëwee xamoo nan lay ñëwee xamoo ndox mi nan lay ñëwee gis naa nag gars yi ñu ngi doon defar canal bi ñuy defar kanaal bi fii man fi la ma fekk mais nag man benn instant bi ñëwee ba mbëkk ba sës fii nee naa suñ mënoon a xeeti ba fële liggéey ko ba fële ba nga xam ne ndox mi bu ñëwee ba fii ñu defal ko benn kaaw boo xam ne bala moo tas defalaat ko fii beneen kaaw boo xam ne ndox mi bala moo bari dina mën a génn dem waaw bu fekkoon ne mën nañ di ñu jàppale ci ndox mi lu demee noonu su boobaa mën naa ñàkk demee yenn yi ndax fii bu bu yàlla ji tawee moom it danañuy sonal benn coono boo xam ne lu yàlla xam doy na waaw xanaa nag ñun nag man nag sama kër nekkeewul ci côté côté canal bi mais nag xaj na soo laajee ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir canal bi moom danañ la gën a jooytu lu dul lii waaye ñun moom étranger lañ te dañuy liggéey mais place milieu bi ñu nekk nii moom ndox mi daal dañu fi fekk te nit ñu fi fekkee chaque instant ñun xam nañ ko waaw loolu daal ñu nit ah nit nit dong la mën a doon mën naa am mën nga waxee xam nga tele ngay waxee wala daanaka du demee noonu mais man nga waxee nii mu demee nen wala ni ngay waxee ak nit ñi bëggee mooy loolu ku mel ni sama gars yi ñoom seen kër ñu ngi si kanaal yi dégg nga damay gis sax benn instant nit daf may ñëw abbu kele bu yàlla ji xiinee nit day ñëw abbu ma kele ne ma ins bi damay gaaw dem dépanner sama machine pompe pour pour machine pompam man ko dugal ci biir këram mën a vider ndoxam man loolu appelé naa kele ba taay te damay gis ni koo xam ne bu yàlla ji xiinee day ñëw sol ay botam sol ab kilootam bu yàlla ji taw day taxaw buy taxaw xam nga loolu it métti na waaw man it dëkkuma dimbalewu ma leen ci wàllu vida su ndox dimbalewu ma ci wàllu ndax man du ma leen tal damay liggéey mais damay gis ne lu demee noonu it xam nga neexul cib dëkk du dëgg waaw damay gis chaque instant yi dañuy ñëw fii di abu machine abal ma kele abal naa sama machine sax mais diw daf ko paanal ndax ndox mi nekkoon biir këram dafa bëri te ndox bu demee ba tolloog séenance bu demee ne ndox moom bëri na ndox bu demee ba yóbbu nit man man gis naa ko li ma wax ni moom dara kenn nettali ma mais gis naa ko xaj na nag gars yi seen kër nekk ci kanaal bi nit dong laa su demee ba demee na noonu maa ngi jéggalu su jum jumte amee maa ngi jéggalu mooy guy guy àjjana mooy comment fi la waaw guy àjjana la guy àjjana ak Missirah dafa taxaloo. procès waaw waaw fa lañ dëkk bi euh, dëkk naa fi lu mat vingt cinq ans waaye nawetu deux mille vingt deux bi sax sama kër dafa yàqoon parce que ndox mi day jóge ci suuf boo ko rajo bu ci kaw. fii yëpp kër yi ndox mi day jóge suuf boo xasee taw gis nga fii ci diggante ñaari kër yi dégg lay doon. même bu ndox mi demee moom du mën a dem parce que dafa xóot loolu moom maire bu ñu ci dimbale jël tali bi tali bi day fees bi oto du fi mën a jaar yépp nag ca canal bi la jëm waaye dafa bari lii terrain bi dañ ko bàyyi def fi canal mais gis nga tuuti du mën a jël ndox moo tax loolu day ko ne tali su demee boo taxawal sama kër boo xoolee da nga gis diggante diggante ñaari côté yëpp dégg lay kër ci digg dégg bi lay sonal lool lool bu ñu ko taw moo amatuñu lu ñuy def am na ci kër yoo xam ne seen i borom ndox kër day dugg ci biir néeg yi buñ génnee bu sibatee ñu génne man xëy na loolu laa daan def waaye yàlla la ma yëkkat naa sama kër ci ba mu yàqoo waaye ñu ci bari ndox mi day dugg seen kër bu te ñu génne sibatee taxawaay boo gis ñu def de mooy xanaa bu sabatee bu sibatee comme fii xóot ñu di fi ñu di fi benn benn benn yor certaine manque te loolu dañ bàyyi ba mu taw ba sibat ay fan waaw sibat ay fan daal lañ manque loolu daaw sax laa ko mos a gis di gis naa gis fii pompe sax bu tawee gis nga lii yëpp yooyu day bëri bëgg a duñ ko heure bi muy tawit fii ñun di ñu gis pas ak seen la bokk fi bokku ci amul ay kii parce que wax dëgg yàlla canal bi moom bu doon moom kenn du fi dëkk loolu moom mën naa la ko waatal canal bi mag bi tuwaay yu defe fii bu doon moom kenn du fi dëkk moom mooy def lu ndox mi defee deux heures temps moo yóbbu wàññi yi parce que lépp fa jëm lu ndox yëpp fala la jëm mais nag day dem ba dootu ko mën a tëbëral si pot day dem ba bi ndaw bi day fees fees na suñ ginaaw kër yi ab jàll lañ ñu defal bu mag suuf pour ndox bi du mën a dugg mais nay fees. waaw sant yàlla bu baax a baax comme yéen yàlla dogal na dem ngeen foofu ba constaté ni liggéey boobu euh, population yi euh, kontaan nañ ci parce que foofu bi yàlla dogaloon nga dem demoon fa euh, ci mois de mois d'août septembre avant ñu démarrer travaux yi di nga trop. parce foofu kenn mënul woon imaginer ni nit dina mës a xëy ba di jaar foofu te yàlla dogal ñu def kanaal euh, kanaal boo xam mooy tiire ndox mi di ko yóbbu directement ci canal de ceinture bi population yi mën a nanguwaat seen ay espace loolu sant yàlla bu baax a baax taxawaayu nag mooy comme ni mu la ko waxee bi ma fa demee nee naa leen euh, infrastructure ñun ñoo koy defar waaye entretien bi du ñun kese ñun dañuy defar dañuy entretenir waaye entretien bi ci ëpp population ñoo koy def ñu leen defaree lu mel noonu jël ay 100 millions def ko foofu ñu bañ ci di sànni ay xar yu de di ci sànni ay mbalit ci dugal ay pono ba mu fàtt ba indiwaat beneen problème boo xam ni après kenn du ko mën a arranger moo tax man à la base j'avais créé li ñuy wax un collectif pour l'assainissement des Dangoye et environ je également appuyer ce collectif la pour l'entretien parce que ñoom laa ko bëgg a dénk après xool après nan lañ ci bëgg a liggéeyee benn sax dem naa fa benn jour fekk ay branchement clandestin am fa mais li may ñaan population yi rek mooy ñu bañ a fragiliser infrastructure bi parce que loolu France infrastructure bu am solo la dafay soulager population parce que wax naa ko nee na assainissement c'est pas une compétence transférée ñun ci suñu liggéey dénk ñu assainissement waaye man du fi nekk samay population di sonn te amaguñ solution moom mën a indi solution te duma ko def donc te compé euh, compétence transférée dafa am également li ñuy wax une clause de compétence générale clause de compétence générale mooy lépp loo xam ni état da ko war a def demandement état bu ko mënee def da koy def moo tax mu bu ñu nee bu ñuy bu ñuy wax sax naan assainissement de compétence transférée c'est parce que bokkul ci les compétences listées yi nga xam ni d'office les collectivités territoriales lañ ci war a liggéey mais ci biir liggéey bi am na loo xam ne état waxu la ko mais da ko war a def si loolu laa décidé def xaalis bu bari ci canal boobu def xaalis bu bari également ci dimbali population ci ay réseau d'égout pour nap bi nga xam ne mu ngi leen sonal eaux usées yi nga xam ne dañ leen mi ngi leen sonal seen kër ñu mën ko génne si seen kër yi yóbbu ko fu nga xam ne fa lañ ko war a sotti en tout cas leen di wax rek ni comme de Rufisque Nord fi mu taxawoon fa la taxaw mooy soulager ces population accompagne ces populations pour que conditions yi nga xam dañ koy dund mu ñu gën ko mën a améliorer ñu ñoom un environnement sain mën a dund ci seen teeyu bakkan loolu daal mooy suñu rol si loolu lañ taxaw boobu ba léegi di ci sant population yi également ci acceptation bi ou acceptabilité des projets yi nga xam ne ngi leen koy jox te mu nekk li nga xam ne kontaan nañ ci kontaan nañ ci trop. Euh, euh, waaw euh, waaw loolu salubrité bi nag xam nga li ñuy wax nettoyer c'est bien. mais ne pas salaire est encore mieux man je demande les populations de Missirah et environ ñu organiser une journée d'investissement humain parce que canal boobu mu mel dañ ko war a bale ba mu set keroog nday bërki démb rek ndeysaan maa ngi gis ab vidéo boo xam ne xale yi ci foofu lañ doon footballé te foofu dëgg la loolu ñu am mosuñu ko am mais war nañ ko war a mën defar ba xale yi mën fa di fowe te euh, duñ fa jëlee ay loraange mais noonu mel noonu xale yi ñu fa mën nañ dara mën na leen gaañ seen tànk yi mën nañ fa jëlee ay maladies yoo xam ni kenn du ko kenn du ko kenn du ko mën a wax moo tax je préfère et j'appelle les populations de Missira et environ ñu taxaw moo je suis prêt à les accompagner pour ñu def une journée d'investissement humain balaa muy taw diggante dalu cimetière yi ba ci exutoire canal bi ñu nettoyé ko moom set wicc même bu ñu ut sable dune ñu jël ko sotti ko fa ba mu xaw rafet en attendant ñëw mun leen ko aménager parce que projet bi dafa ànd ak aménagement dama defar canal bi mais incha allah je vais revenir pour aménager samp ay garab rafetal foofu bu nit ñi mën fa toog éclairer ko bu mu fa toog donc salubrité bi nekk ci kër gi nag maire def ko fa ku nekk sa biir kër yow yaa ko gérer boo ko génnee ci buntu kër gi boobu lay maire di intervenir te bu koy génne si buntu kër am na fu ñu war a tuuree mbalit incha allah ci aménagement yi ñu bëgg a def dinañ leen utal point de regroupement normalisé bu UCG tegal leen fu ko foofu ñu ci mën a am ñaar ñu tegal leen ko pour ñu fay mën a tuuree seen ay mbalit. loolu daal incha allah si sama projet yi la bokk te du yàgg dara incha allah nañ leen ko defaral mais li si des nag c' est problème boo xam ni problème population yi ñun ñoo ko war a te am nañ yaakaar ni dinañ impliqué wu pour seen environnement bi nii mu mel nii mu gën a amélioré wu incha rabbi ginnaaw bañ ci defee investissement bu toll nii. KN